a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim kon bu ko defee ñu ñëw ci sun bind tey ba léegi rek ñu ngi ci yi yàq am njàpp ci bunt boobu la nekk kon tey dañuy àggale li desoon ci bunt boobu Mhm. kon ginnaaw bi mu xamee ne wax na yàqam njàpp daa indi yi nga xamee ni du yàq am njàpp maa nit bu jàppee ba noppi def ko am njàppam yàquwul to yooyu bokk na ci laal buntu suuf ku jàpp ba noppi laal buntu suufam loolu du yàq am njàpp ba tey tamit bu dee góor la bu laalee ñaari waay yàlla yi ñaari waay yàlla yi ku leen laal ba tey tamit loolu du yàq am njàpp ba tey bu laalee sawukaayub jigéen euh, wala xale bu jigéen waa bu laalee xale bu jigéen boo xam ne ayatam atam kenn mënta am bànneex ci moom xale bu jigéen ba am benn at jàpp ñaari at xale bi jigéen bu mel noonu ku laal ab sawukaayam du yàq sam njàpp kon eh, bu doon xale bu jigéen la boo xam ne àgg na ci fu mën a amee bànneex ci moom moom ko laal aw yaramam doo jële ab sawukaay aw yaramam da ko ko laal eh, te jublu ci bànneex sam njàpp day yàqu niñ koy leeraloon démb ci eh, xaaj yin ko defoon ba tey tamit wàccu du yàq am jàpp ko jàpp mën wut daal wàccu wàccu du yàq am jàpp doon ci biir julli la ko fekk julli gi mooy yàqu bu dee moom moo ko tey waaye jëmmi jàpp moom du ci yàq dara du ci yàq dara ba tey tamit ku jàpp mën wut daal lekk aw yàpp wala yàppu gileem loolu du yàq njàpp daa ci leen ci borom xam ñu ni lekk yàpp gilem day yàq am njàpp waaye bari fiqu maali moom li gën a wóor mooy loolu du yàq am njàpp ba tey ko jàpp ba noppal waa def li tudd nàmpatalu nàmpatalu nàmpatalu ku ko def sam njàpp du yàqu ba tey tamit gaajju loolu tudd gaajju gaajju mooy deret ju dee ju nekk ci aw yaramam mu dagg ko génne ko waaw der ju dee ju nekk ci aw mu dagg ko génne ko lu dul gàccu loolu tamit ko jàpp lu ko la def ko du yàq am njàpp du yàq am njàpp bu dee ci gàccu rek la yem loolu du yàq am njàpp comme muy nàmpatalu muy gàccu umu ci lenn loo xam ne day yàq am njàpp ba tey bi jàppee ba noppal wala xàqtaay reetaan reetaan loolu tamit du yàq am jàpp kon gis nga foofu day tudd rek yi nga xamee ni ci fiqu Maalik moom du yàq am jàpp waaye ba tey bokk na ci yi nga xamee ni du yàq am jàpp mooy jigéen bu jàppee ba nu laal ab sowukaayam waaye te mu laal jëmmi sowukaay ba waaw doon jëmmi sowukaay ba la laal mooy da ko laal ak loxoom directement loolu du yàqu. doon nag loolu boroom xam-xam yi ci fiqu Malik ci ngiru mi dañ cee wuute ci njiir mi ci école Malik dañ cee wuute daa am ñu wax ne nu mu ko mën a laale toj na maanaam euh, moo xam da koo laal nii rek ci kaw moo xam da cee dugal baaraamam nu ko mën a defaree am jàppam toj na am nañu wax ni nu mu ko mën a laale tujut waaw mooy moo xam daa laal nii rek ci kaw teg ci loxoom moo xam du cee dugal loxo wala mu dugal ci baaraamam nu mu ko mën a defee am jàppam du toj te loolu am ñu wax ne mooy li lëng ci mashab bi maanaam li lëng li wér ci ngir mi am na ci ñoo xam dañuy teqale waaw dañuy détaillé mooy dañuy wax ne bu fekkee daa laal noonu rek ci kaw mooy da cee teg loxoom loolu rek ci kaw loolu moom am jàppam waaye fekkee da cee dugal loxoom wala da cee dugal baaraamam boobaa am njàppam ci lay soog a yàqu te day mel loolu ci wax jooju la siñ bi ànd siñ moom day mel ay téeréem loolu lay wax mm, ci téere bi dane waxees na ni waxees na ni bu dee da cee lunkal baaraamam man da cee dugal baaraamam ci lay am njàppam di soog a yàqu loolu day mel ni lu wax jooju wax ne waxees na xam day mel ni wax ju dëgër day mel siñ bi ci wax jooju la ànd ndax boo xoolee jëwhër daa wax rek ne jigéen bu laalee ab sawukaayam ca te te te dugal ce loxoom am jàppam day am rek wax direct bi charte iltaafi waaw bu ko laalee te dugal ci loxom rek am jàppam day yàqu moom benn wax boobu rek la indi kon wóote gi indiwu ko waaye daal wóote gi boo ko bëggee jàpp rek wax ne am na ñoo wax ne lu mu ko mën a laale toj na am na ñoo wax ne lu mu ko mën a laale tojut am ñu wax ne bu fekkee ne. daa dugal loxoom ci biir wala baaraamam ci biir ci la am njàppam di yàqoo waaye bu ko laalee noonu rek ci kaw boobaa du yàqu waaye nag laal gi nag li ñu mooy laal jëmmi sawukaay bi kon bu fekkoon da ko laale ci kaw ay yéreem boobaa du yàqu même góor tamit ni ko waxee woon bu ko laalee ci kaw tubayam wala ci kaw yéreem du yàq am njàpp kon dañuy sart laal bi mu nekk jëmmi loxo beeg eh, sàkkara sawukaay bi dara bañ caa dox muy góor muy jigéen bu baax ci la ñu soog a waxee. lii nii ne day tojam jàpp ci kaw bu fekkee ne da caadugal loxo loxoom da caadugal dugal baaraamam